yaa leen man àll si la yaa leen man yaa leen man bu dee am na gox yoo xamante ni militant yi responsable yi ba léegi mënuñ yëy yàbbi si élection yi ndax xamuñu fu muy mujjee Madiana demoom moom 1 ba 6 àll silam jàpp na ni leer na ko te wóor na ko ni dañuy voteel benn bokk yaakaar li ko waral mooy 21 jours de campagne sur le terrain yendoolul fanaanul chaque jour mi ngi ci terrain bi àndal équipe am tàmbale ko si travail de proximité yi dem def li nga xamante ni mooy ay porte à porte waaye tamit bien avant cela nekkoon na si biir terrain bi. doon fa amal ay activité yi nga xamante ni moom lañuy faral di gis Touba ay cant ay màggal dem si ngénte yi jàppale association yi doon ay parrain jàppale équipe de football yi jàppale jigéen ñi monter ay làmp maye ay ndox yóbbu si jàkka yi li nga xamante ni mooy ay rajo ak yeneen ak yeneen loole lépp nag mel na ni fay nañ ko ko ndaxte bi mu tëjee mitinam si fi nga xamante ni mooy Godzilla di kenn si moom si ay responsable dafa improviser benn caravane goxub Madiane yi la doon dugg jàllale message de sensibilisation ngir ñu jàppale président Macky Sall ndax yàggatul waaye fu dem de gis na nañu ni mag ñi nga xamante ni ñoo te doon ñooy génn ñëw ngir teertu ko wane seen cofeel convoi bi sax mënul woon dem ndaxte population bi dañoo teg si àll si la fas yéene ko jox bi nga xamante ni mooy satisfaction su bis baa noonu lañ ko wéyale ci mbooleem gox yi nekk si biir Mamadiyaan. waaw bu leen kenn nax. réew mi. réewum Serigne Touba. barke nee naa leen réew mi. barke ah président Macky Sall barke bi moo fi nekk barke bi xool ko ndeysaan ni li ma ko def ak a jantal. waaw. waaw. Ah, message bii di jàll population bi di génn di savourer yàkkamti voté fii nag mel na ni mokk na bu ñu sukkandikoo ay ñoñam. waaye nag fii moom fu mel na ni li wolof njaay naan buñ ne diw baax na ñu ni mbokk yaa ko wax ñoom nag ñoo gën jàppale Alla Sylla si élection yi nu jëm firnde bi di lamp yi ngeen di seen ñoom kat nee nañu du kenn ku moom moo ko fi samp sans compter également jàppale yeneen yi mu def si côté ndaw yeeg mag ñeeg jigéen ñi ba bi ni agsi si këram presque min wi tegal na foofee nag ñëpp wàcc Alla Sylla joxe dernière directive yi réunion de bilan nee gis na ni dinañ teel a jóg teel a bi amal ay élection si jàmm bu si moom jàpp na ndax kon cette fois bee passé du yàqaat ndax sécurité bi mi ngi à te gis na ni lu des daal mooy résultat te am na confiance. am nañ yaakaar ci ni liñ def ci suñu wàllu liggéey dañuy am yaakaar bu baax tamit ni lim ñu defal ñun jàpp nañ ni suñu liggéey dana mën a gañe Tuubaa loolu dañ cee am yaakaar bu baax ndax dox nañ ko wax nañ ko dëgg la moyen moom dañ koy wax rek mais xëy na liggéey lu moom nit moom ku ko yebal ci faaw nga jox ko lu nga xam ne dina ko mën di passé wala mu ciy def gasoil wala yooyu xëy na moyen yi foofu rek lay war a man a jëm waaye tamit bi mu ko defee ba noppi ñun bàyyiwuñ suñu bopp dox nañ ci suñuy bokk suñuy xarit ci suñu sonn dox nañ ci bañ xam ne ñëpp xam ne dox nañ ci mais nag taxul nag ñun ñooy yem suñu sonn dañu dox comme niñ ko waxee woon rek dox dëkk bi yépp fu yaakaar ne fii buñ fa doxee gañee dañ faa dem fu ñu xool boo xam ne électeurs yi bari na te xëy na bëriwul ñu fay dem dem nañ fa dox nañ li ñu war a dox lépp ba am nañ suñu yaakaar yaakaar bi moom jot nañ ni buñ ci eggee la vingt-quatre moom rek la mën a dégg waaw xam nga bilan bi ñun dëgg la xañ na ni coow li bari na waaye nit ñi tamit ñi yor seeni électeurs ñoom doxuñu nit nag boo demee ci moom tamit di ko campagne da xam da ngay xam ñoom ñu xam ñun ñuy dugg ci dëkk bi di xam na am na luñ xam da nga ci daan dugg mu am joow wala ñu di la saboté mais léegi li mu laaj nii da ngay dugg ci dëkk bi ñoom ñoo lay ñoom ñoo lay tàccu kon ñun yaakaar jooju nag campagne foofu rek nga foofu rek nga a am en tout cas ñun li ñu war a def moom def nañ askan wi nag ñoom ñoo des nit it doo ko ni nangam ngay def li nga mën daal nangam laa bëgg mais li ñu war a def ñun dañ koo defante defanteeg ñoom maslaa ñoom dem ci suñuy bokk suñuy xarit suñuy ndaw suñuy jigéen ak suñuy jàkka fas na ñoo yéene dox lépp dem ci ñoom yaa leen man àll si la yaa leen man yaa leen man yaa leen man yaa leen man day